sunu borom itam taxawu ko waaw mbiram lu yéeme la lu yéeme yéeme la ku ko am kilifa te daluloo doon nit waaw ku ko am kilifa te daluloo dal dal waaw doon nit waaw tabarkalla tabarkalla jëkku ko won boppam ni ko man la yàlla waaw lépp lu ñuy def ci sama tuur lañ koy def mu d'accord ca itam mu ni ko maa la yónni itam ci kii ñuy tudde nit te am nañu la ci jiitu waaye ba tey rek yembul mi ngi waaw maanaa yóor gi feesul ba tey doomu aadama ni ko yembul nak yembul waxuma yombul yembul waaw moy ko xamni ni sa yuur feesul yàlla ko wax yonent bi ni ko waxul waxuliqal insanu daifa waye nan ko séq rek maak yow waaw lu mata baye xel la waaw lu mata baye xel la ndax itam du tiaxan waaw bu ko defee rek ca yonent yu jëkk ya ba ci moom sunu borom noppaluwul mu mel na wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon ñëw na ci tawraat wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon ñëw na ci injil wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudoon ñëw na ci alquran

bu jëkk waaw waaye bi yonent bi ñëwee soppeeku na waaw abid mooy serviteur waaw ci yonent bi kay ngeen seet maanaa bu baax a baax doxin yi moo ak si foofu bu ko defee abid daal di nekk candidat candidat war a nekk servi borom bi waaw candidat la war a servir borom bi àggagu ca nag waaw waaye candidat la ci nag mu mel ni ci biir loolu xam naa borom bi ak yonent bi séq ko waaw jàngal ko kon ni ko ci lumbu deret laa ko bind xam nga ku ñu bind ci lumbu deret buñ la taxawul àdduna tukki mu won ko ni ko itam élément yi daje ba mu nekk nit nii benn saxu ci waaw xam nga ni kon liggéey dikk na waaye muy dimbale yonent bi rek yonent bi di dimbale xeet wi waaw su ko defee muy jaar ci aaya yi di di di jàngal yonent bi yonent bi di jàngal nit ñi waaye léeg-léeg mu jaar fu nga xam ni du doon ci aaya yi pour dimbale yonent bi mu gën a dégg te la yonent bi dégg ni sunu noon bi jiitu ci nun mooy crise de personnalité

ñu ni ko nangam la tudd mu daldi soppi tur wi xaat waaw ndax tur wa crise personnalité mën na ca jaar moo tax daf koy daldi soppi lu tax parce que yaa nekk candidat bëgg servir borom bu nga xam ni tur yu rafet yépp daje ci moom kon nag fokkit yow nga war a mën a am benn tur bopp bu rafet moo tax borom bi wax ne ay yemma tad'u fa lahul asmaul husna yàlla tur yi rafet yépp dajale na ko tabarkalla tabarkalla waaye boo demee ba mu yàgg ba mu yàgg ba mu yàgg ba mu yàgg ba ñoom buusiri yi ñëw nga daal di gis mu wax ni fa inna li dhimmatan minhu بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم Busiri di wax ni ni ñu ko tuddee yonent bi moo dal xelam ndax wëllëre tax ñu tudde ko ko te yonent bi moo gën a mën a mottali wëllëre ñépp ci kaw suuf moo tax aada lu foor la ci réew mi kay Sénégal moo doon nee na woon diine du fi daan aada mukk aada rekk a fi daan diine moo doon daan na ko wax yonent bi xare na ba tey waaye foofu mën a lu ci dara waa Sénégal ma wax la ko ndax fekk ku ñu tudde Muhammad ngir bëgg ko sowe nga fexe ba di ko wax moor baa nga di ko wooye móodu loolu lu ci nit man waaye ba tey dossier bi ko def mag ñi nanguwuñu ko versé ci xudusiyaat yi daa dañu bëgg plaider ko ba rëmziya bi sax ñu nangu ko bopp waaye xam nga ku ñu tudde Muhammad mu jeetul lu dul ñu naan ko moor walla ñu naan ko móodu bu ñu ko plaidéwul rekk àdduna tukki te ci wàllu ramziya rekk lañ ko mën a plaidé te mooy miim gi jiitu rekk daldi di saxal wóllëre wi bu ko defee ñu wege la ko mag ñi jàmbar lañu waaw ki tudd Mahmoud ñu ni ko Mamour loo ci man loo ci man am naa maam mu ñu tuddee Mahmoud waaye maamu ndëri lañ koy wooye fële ca ñooro ñooro maamu ndëri te Mahmoud la tudd de waaw xam nga yooyu mi ngi ci réew mi waaye mag ñi it duñu bàyyi ñoom seen dossier dañuy bokk rek ndax buñ ko xasee wersi ci xundu si yaat yi mooy mënatuñ ci dara bu ko defee kenn dootu ko jariñoo te itam li ciy dal xel mooy ku mel ni Maodo ni mu kondam ne aada waaye terewul ñi ko daan woyal te ñépp xam ni borom cër lañu borom wilaaya lañu te dañu daan wax jaraayiruna tumha bijaayi muhammada te bijaayi muhammad la ñu war a wax waaye taxul mu jële leen ca pour wax la ni seen xel dal na ca ci wàllu rëmziya bi waaye rekk moom foofu la dale moom yonent bi di wutal nit tur bu rafet tur bu jekk ba mu ca jógee itam tabarkalla tabarkalla mas na romb sidna abu bakar muy jàng alquran jàngi ni ku ragal yàlla dafay am mu ni ko yëkkatil sa baat waaw bu nga defee mu yëkkati baatam jàng ko jàng góor piir te bañ ko jàng jàng ku ragal yàlla lëfa tax romb na sidna omar muy jàng alquran ni ko kaang yi fii di jànge ndax xumbeen la woon moom itam mu ni ko wàcceel sa mu daal di wàcce baatam jàng ko jàngu góor te bañ ko jàng jàngu xumbeen waaw yooyu yépp ku ci sonnoon la te nekk jàmbar piir ci loolu ndax ki nekk candidat war a servir borom bi nga xam ni jikko yu rafet yépp ak tur yu rafet yépp ci moom la daje dañ lay taxawu buñ la taxawul rekk àdduna tukki loolu mooy li ci nekk nit woo na ko ci lekk mu d'accord ca waaye ba mu demee ba gis lekk ga nañu ko defaree mu gàntal du caagi nag dafa ñàkk kersa déedéet waaye dafa yare rek waaw ndax xam na ni crise personnalité bu wàkkee candidat bi rek dootul dem ba ci togg waaw ba ci togg ba ci togg yooyu yépp mu def ci yitteem tabarkalla tabarkalla tabarkalla di nu dimbale bu baax borom bi di ko dimbale bu baax waaye kenn mënul fexe ba borom bi renoncé ci principe am kenn amul barkeem moo tax ngay gis borom xam-xam bu rëy di la wax ni gëm naa sax yàlla waaye nangu naa ni ko soxar la ma ni ko soxor jikko la te moom nag du jikkoom moom ci principe lay soxare maanaam dafa war waaw bu soxaree rek dafa war principe la ci moom moo tax yonent bi sonn sonn sonn sonn waaw lu muy teg góor teg na ko lu ko ëpp moo tax jar na bàyyi xel lu muy teg góor teg na ko lu ko ëpp waaw wala jar na bàyyi xel surtout fii ñu toll ndax itam dafa ni yàlla mag mu tàyyi la kooku ëpp naa xalaat ëpp naa xalaat loolu li ci yonent bi dekk mu dajloo ko ko tabarkalla la pour ñu jariñoo ko moo tax waaye itam mësul deñ di wone ni moom jamono moom yàlla moo tax yonent bi daan wax ni bu leen rëbb jamono mukk ndax jamono mooy volonté yàlla bu ko defee nga topp rekk am na ñoo xam ni dañu defe ni waxtu wu nekk mën nañu fexe ba jamono topp leen te jamono yàlla rekk lay topp jamono yàlla rekk lay topp bu ko defee mu nekk ca di sonn nekk ca di sonn léeg-léeg mu jël baat jox ko njaboot yi ni nañ ci tabax seen dund bu ko defee ñu jël baat ba baat ba dema dema dem ba lu mu tabaxoon baat ba dana màbb loolu bu ko defee mu ni kon nañu bàyyi baat bi seet beneen waaw ndax ku xam jamono la mu bind jamono foog mu xam ko waaw loolu ku ci bàyyiwul xel rekk àdduna tukki waaw te yàlla dara du ko rëcc moo taxoon yonent bi sonn loolu moo taxoon yonent bi sonn te léeg-léeg mu def loo ko loo xam ni yonent bi dafa naan su ma ko defee sama bokk yépp dinañu dal ci sama kaw te wax na dëgg moom it dafa am fu njàmbaaram yem yàlla kay la njàmbaaram yemul fenn parce que moo bind njàmbaar waaye yonent bi daan na dem ba ragal yàlla may na ko jabar ñemewula jël jabar ji te sëy ba yàllaa ko def waaye mu xam ni bu nangoo jabar ji dinañ ko yekk lu raw lañu yekkoon sayyidatuna Maryam ba mu juree Aysa te ñépp ni dañ koy caw pour mu wax leen doom bi fu mu ko jële pour wax la ni doomu Aadama noonu la ma samel ba su ci waaye yàlla dafa mujj nag di ko jàjji wa taxsha nnaas baatu wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha am na ñoo xam ni lam làmmiñu nit ñi la ñu gën a ragal ci njàmbaaru yàlla te ko erreur gënu ko garaaw am na ñoo xam ni li ñuy daw ci ku leen wax safaan moo tax ñu tàrde képp ku tardé daw ñu wax la safaan moo tax nga tardé ndax képp ku fukki nit wax safaan dinga am ci yoon loo xam ni jaratul sax ngay jaamu yàlla seetal loolu ndax ku la wax safaan rekk borom bi nangu yiwam jox la keneen wax la safaan boromam borom bi nangu yiwam jox la boo amee junni noon nag dootul soxla sax nga jàmmu yàlla ndax li ngay am ci yoon dootoo xam foo ko teg waaw waaye bàqaara bàqaara bàqaar ba kenn ku ne nga bëgg mu kontaan da ngay rey sa bopp baaxul da rey sa bopp baaxul te ki tax ngay rey sa bopp mënalul boppam dara kon naka la lay mënale dara kooku mënul nekk wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha loolu la wax yonent bi ñu ko looy ragal ci nit ñi man mi la may jabar nga ni doo laal jabar ji ndax dinañ la yekk loo xam ne nangam nangam nangam nangam seetal loolu mu mel ni kon yonent bi foofu la yitteem jëmoon waaw di jéem a résister nag wa taxsha naas wallahu axaqu an taxsha muy jéem a résister nag di jéem a résister di jéem a résister léeg-léeg mu metti lool ba borom bi sax wallu ko woon ko ni ko metti na nag waaw ah loolu nag bu ko bàyyeek njaboot si njaboot ci dañuy bàyyi seen xel ci seen bopp waaw te mooy fexe ba am pas-pas ci moom bu tax sa bët du xonq bu taxit sa fit du dem waaw waaye koo xam ni lu yëngu yóbbu la ah fooy jële yiw fooy jële yiw wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxsha dama mas tukki dem ci benn hôtel am fa ku baax italien la ñëw déy ma ni ma bu fi wax soxla fii yëpp ay mikro fi ne ma ni ko ñi fi def micro seen micro yaa nga ca xëy ba yàlla di ko déglu te taxul ñu bàyyi kon lu ma neex laa fi wax waaye lool rekk la yow loo nëbbul yàlla loo nëbbul yàlla loo ciy nëbb nit ndax ragal làmmiñam rekk te ragaluloo bëtu yàlla loolu kenn mësu koo gis te dama yëg ci njaboot yi rekk ñoo xam ni daani ki rekk baqaar lañu maa ko wax te boobu baaxul nag baaxul de baaxul mukk su ko defee ñu di ci bàyyi xel lenn rek lañu la tere tooñ waaw wala taatatu waaw tooñ rek lañu la tere bul tooñ mukk waaye bu la kenn weddiloo sa bopp nag waaw loolu rek mooy li nga xam ni moom la ñu mën a jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy jàmbari fàkk tëdd lu nekk mu muñ ko ci àdduna waaye nag itam luy dal gor dal na ko mooy ku ragal làmmiñ wu ñaaw la moom daf ko masa ragal rekk waaye gannaaw a yàlla may la mag ña koy wax waaw wax bu garaaw la ndax mi ngi lay won ni gannaaw gi yàllaa ko moom loo ci teg ci yëfi jàmbur nga ko teg moo tax di ci bàyyi xel dana taxit borom bi bàyyi nu xel tabarkalla tabarkalla su ko defee alquran ci wàllu boppam yàlla di ko wàcce ci moom aaya par aaya la waaw aaya bu nekk mu jàngal ko lan la ak nu mu koy jariñoo ak nu ko njaboot yi di jariñoo waaw bu ko defee moom it jottali ga ca war la koy def jottali ga dafay wér te dafay wóor mom lañu tuddé tabligh ku jàng alquran fokk nga ni sadaqa allah alazim wa ballagha rasuluhu alkarim yàlla dëggu ak bopam ba muy dëggoog boppam bindagul looloo tax bu bindé ki mu bind ak limu bind biñu ko taxé renoncer ci principe manul nek nak manul nek nak te lu mata baye xel la waaw mu yërëm maag mu nangam nangam moo tax Maodo boo masaan ni loolu yàlla du ko seetaan mu ni la seetaan na lu ko yées te looluy dëgg seetaan na lu ko yées pour wax la ni kenn amul barke ni ko bàyyil sa principe kenn amu ko ma nga ca nag mook yonent bi moog yonent bi moog yonent bi muy metti rek di metti di metti di metti tabarkalla waaye di am njariñ di am njëriñ di am njëriñ ndax fii dëkkunu fi dañ nu fi indi nu waaw dañ nu fi indi rek pour yar nu waaye indiwuñu fi pour ñu dëkk fi fa nu jóge lanu dëkk boo gisee mag ni pat te xamul li tax mu ni pat yëgul ni ruuxam moo koy fàttali fa mu jóge bu fekkoon jàmm rekk la bëgg foofu duñ fa jóge di ñëw fii ndax fii amul jàmm fii amul jàmm bu ko defee nag nga takku takku nee ñu kaala xam nga kaala ci objet yi xëy bu moom la bokk kaala bañ ko yebalee ni ko demal dimbali nit mu ni fan laay nekk ci moom ñu ni ko ci ndiggam demal demal takku ca ndiggam xam nga ni kooku liggéeyloo nañu ko de waaye bi mu ñëwee ba ci yoon wi Iblis ko dogale ni ko ki ko wax dafa juum ca boppam ngay tegu bu ko defee rek daraja dal di dikk te daraja bu dikkee nit ku dootul def dara ba tax na foofu lañu toll crise yi ci àdduna bi dafa bare tabarkalla tabarkalla te kenn mënul am fitu def ko faas lu dul danga dimbali ko yonent bi mu dimbali ko yàlla lu nekk dañ na ko lu nekk daj na ko baat yi ci alquran yépp mu di ko joxe nu di ko jariñoo waaye baat bu ci dem ba yàqkat yàq ko mag ñi dañ koy xam moo tax dootuñu tudd baat ba waaw moo tax dootuñu tudd baat ba daan naa dégg alaaji chandiay yi di wax ni te booba moo may jàngal alquran mu ni nit bu mokkalee alquran nee na buñ koy yor ci bàmmeel feet bu rëy la ma ni ko mën nag lenn ma jaaxal damay faral di gaaw a fàtte mu ni ma ñéppay gaaw a fàtte waaye boo fàttee jàngaatal boo fàttee rekk jàngaatal mu mel na li yonent bi wax ni alquran nee na moo kéwél gu ñu jam te dooleem jeexul ne benn lañu xam nga kéwél boo ko jamee te mu dese doole fokk mu fëx alquran it boo ko mokkalee fokk boo toogee tuuti jànguloo ko mu daldi di fëtt yàlla xam na ko boo ko defee rek ngay jàngaat di jàngaat di jàngaat ñu naan mu yéen moom li muy wax ci guddi lan la fekk da nga fëttale waaw da nga fëttale di jàngaat walla boob di gën a jafe man te gën ma fitnaal mooy runge runge waaw xaw ma baatu runge moom defe naa jàngkat daara yi ñoom xam nañ ko damay faral di dal bu metti ba benn bés ma ni waaw te ñu seetal ma kaang mu nga xam ni mën na wàññi ndax kaang yi dañuy tagg aay yi moo tax duñu ñu runge waaw ma nañ ma seetal kaang kaang bu nga xam ni dana ma dimbale ci côté boobu ndax dama amoon sëriñam ku jéggi dayo ñu di ko wax Ousseynou sal ca Saalum waaw tabarkàlla ku ko gën a man alquran amul soxnaa sukkan ku bare woon yitte la mu woolu ko mu ñëw mu ni ko dimbaleel xale yi moom nag wàllu wàllu googu def ca am may waaw waaye rekk ba mu fa jógee rekk gannaaw ga runge yi daldi dellu seeti ngay runge rek di runge rek di mujj ma ni dana jóg ndax Ousseynou dafa gaañu danaa jóg làmb Saalum ba xam am na ku mën a dimbale nit ci runge bi ma ko xalaatee rekk ma génn dem dellusi gis walisu <coughs> walis bu ndaw buy tege ma ni ko moom valise bi ñuy waa sa benn mbokk boo xam ni njaboot la ci Cheikh El Hadj Ibrahim Niass moo la ko jox ma ubbi ko rekk muy kaamil bu nga xam ni li ma doon wut yépp a nga ci tabarkalla tabarkalla pour wax la ni alquran moom lañu mën a jàpp bu jamono dee yàqu ñuy am yu ñu ci jële waaye du tax nu soppi jamono mukk du tax nu soppi jamono dañu ciy dimbali ko rek mel ni aspirine walla niwaakin waaw waaye du tax nu mën a soppi jamono waaye lu am solo la ci côté boobu <clears throat> temps yii yëpp nu ngi ci di ko seet waaye nu gis ni rekk jamono ndeke kenn mënu ko soppi fu mu jëm rek borom bi moo ko fa jëmloo ko defee ngay dimbale ko alquran di am rek nooy naxantee nooy naxantee nooy naxantee loolu moom la yonent bi bàyyi fii <coughs> moom nag dafa bokk ci silkul am xam nga yonent yee ko jiitu dox lañu war a dox mu ñëw donn lépp waaye yi mu donn yéppit yàlla moo ko ci tette ndànk-ndànk Nous dinu ci nous moom itam nank taxul na dem du wax conscience am nous wax te borom bi comme enregistrer conscience lu conscience am wax rek daf dal di koy tontu moom ci làmmiñ waaw won ko ni ko rekk loolu nga bëgg mënul nekk waaw walla mu ni ko loolu nga bëgg nanu ko seet walla mu ni ko loolu nga bëgg nan ci def ñaan waaw ñett yooyu la bi mu ko waxee ni ko damay tànn waaw man minorité de qualité rek doy na ma mu ni ko kon nooy def majorité bi mu ni ko dama leen di parqué waaw dama leen di parqué fii samuumin wa xamiim wa dhillin min yaxmuum xam nga loolu yonent bi du ko du ko mën a muñ ndax ku bari yërmande la te ku bari lu muy ñëwanti nit la su ko yàlla waxee ni ko nit ñi ni ci ñi ci ëpp dama leen di parke daf koy metti waaye amu ca ni ko foo leen di parke mu ni ko fii samuumin wa xamim wa dhillin min yahmum wax nañ ni yax moom garab la bu nga xam ni xob ya dafay génne gaz toxique pour asphyxier ñañu fa parqué xam nga loolu soxar lay niru wante du soxar principe la tabarkalla tabarkalla kon yal na nu yàlla boole ca minorité de qualité ba yal na nu ca yàlla boole waaye terewul yonent bi di sonn rek pour rek majorité bi wañi ko bob ñu tan ci asleuf ndax metti na nak waaw isamu min wa xamim wa dhillim min yahmum yax moom di garab bu nga xam ne xob yi dafay génne gaz toxique di asphyxier nit ñi te du détruire environnement moo tax tubaab yi ñaari guerre yi ñu def te bu ñu reyee nit détruire environnement ñu ni nañu essayer luy rey nit te du détruire environnement moo tax foofu lañ ko royee moom la ñuy tudde xaw ma bombe à neutron xaw ma nga xam ni léegi ku ñuy xareel mën nañ la rey te duñu toj sa kër bu ñu la reyee ba noppi donn kër ga ma ni benn la benn la di waaye rekk yonent bi affaire ba metti ko lool <coughs> conscience am di laajte rekk borom bi ni ko fi may parke nit ñi man mi xam lu baax su ma la waxee ni baaxul nanga ko nangu ma leen di parke baaxul baaxul ci biir baaxul ci biti la baridin wala karim fa ma leen di parke baaxul ci biir baaxul ci biti la baridin wala karim ndax innahum kaanu qabla dalik mutrafin yàlla ni ko mooy ñi daan ngand ngand lu ci kaw suuf di ngand ngand lu ni dañu am judd ana judd ba di ngand ngand lu ni dañu am pouvoir ana pouvoir ba di ngand ngand lu ni dañu am xaalis ana xaalis ba di ngand lu ni ku ñu dóor nga xalango ana doole ja bu ko defee yonent bi jaaxle xamatul lu muy wax innahum kaanu qabla dalik mutrafin waaye nag itam rek am lu ko yitteel mbaa jigéen ñi duñu ca bokk mu ni ko ah, duñ ca man ñàkk bokk nag ndax képp ku tëxët ñaare la tëxët walla jigéen xanaa li ñuy tudde parité dikk na bo waaw waaye rekk mu xaw ñëwant moo tax mu wax ci xadis lu bokkul ak alquran mu wax ni fa ñuy parqué nit ña daal la ma fa gis mooy borom dara ji yowoon ci àdduna fa ëpp ak jigéen ñi kon nag nanu sàkk pexe waaye pexe mi yàlla ko mën a sàkk mu jógee rek ni ko wasalli alayhim inna salawaatika sakanun lahum waaw bu jógee rek ni ko ah ñaanal leen xëy na boo leen ñaanalee dana am jamono ñu dal dal ndax yàlla ku dalul du la tànn waaw yàlla ku dalul du la tànn rëjëx rëjëx mu bàyyi la fa